mi sumburu bébé Modou Lo ah mi sumburu mu sumburu moom nu muy dóore mu eh fañ ko yegg sori na de mi sumburu ah mburu Bamba Faye mi fañ ko yegg sori na mi sumburu ah waaye génn na ci am na devanture mi sumburu am na devanture mi sumburu am na devanture jël na ko bañ na Bébé Modou Lo jël na ko mu bañ Miss Mboro gi téye rek a caxabal ba caxabal ba caxabal Bébé Modou Lo caxabal na Miss Mboro mu daanu ah Miss Mboro waroon daanu ci koor gi Bébé Modou Lo caxabal na Miss Mboro mu daanu ah Miss daanu ci koor gi